le maire de la ville de Dakar et le conseil toute l'équipe de la ville de Dakar ñi avons parce que ñi ngeen gis ñu mobiliser fi équipe ville de Dakar parce que Dakar dafa am nu équipe la la preuve en est que le maire sax teewu mais teewul qui nga xam ne est adjoint au maire mon moo yor ce, développe ce volet mon mi ngi fi teew au nom du maire mais au nom du conseil li ci am solo lenn la nous gis que problème yi bare na dans Dakar mais nous avons vu que Hann Bel-Air dafa ben programme spécial programme bo xamante da fay defaraat tali réhabilité mais moy li ñuy def tay mais programme bo xamante aussi aussi fay tabax tali parce que li ñu soxla woon ci tali yi ñu wara tabax umpale wolé la que Mariste dafa nekk quartier bo xamante mi ngi gën di mag té buy il faut que mu am ay équipement collectif yu leen di accompagner bi ci moi moy li nga xamné moy mooy voirie yi tali war nañ tali mais war nañ aussi tabax ay tali

am solo surtout par rapport au cadre de vie donc li accompagne effectivement c'est des ralentisseurs muy ay donc lolu am wax muy financement bu am solo bo wara ville de Dakar ñëw exi ba fi ñuy def entretien bi ñun dañuy japp ne que ah wax deug conseil bi ñi ngi askanam man naa wax mais indi ñu gis que quartier quartier quartier indi nañ loolu da fay gëna motiver que lii c'est une demande des populations donc population ñu xamné ko ñi ngi bëgg seen collaboration ci li ñuy def collaboration mi ngi commencer ci kaw boy occuper espace public voie publique muy lu melni trottoir ngeen xamné ne que tey boo doon wër bari na ci ñom ñu mënul a génnee autorisation ah, parce que amuñu ko trottoir nak pour nit kuy dox la problème de sécurité là. Les qui di ngay faral di dégg ñu l'auto la oto fiir na mais man jàpp ne que bu fekkoon ci trottoir la doxoon problème yooyu du donc c'est des incidents yoo xamante ne ñun liñ ci municipalité bi municipalité comme la ville de Dakar dafa dit collaborer avec les populations et nous nous nous ñun en tout cas ñi collaborer et c'est pour moi l'occasion pour que me remercier remercie parce que li am c'est le travail des populations. Je ne dis pas que moi en tant que maire, moi peut-être amenant mes préoccupations peut-être am naa préoccupations mais préoccupations yi nga xam ne ci nañu taxaw ñu ko ville de Dakar le conseil municipal bi mobilisé wu ñëw d'accord ci li nga xam ne war nañ ko def biir Madis dañuy encourager ñu xam que seeni engagement citoyen tey moo commencé jur lii nga xam ne résultat la parce que ce fi a liggéey bare na bouchage des trous nous avons fait ay mais nous avons également éclairage public dans ce quartier nous avons fait fi Nous avons fait au moins 300 pylônes électriques donc 300 pylônes électriques la ville de Dakar parce que ñun dañu bokk ville de Dakar Nous des dañuy faral di mairie mais nous savons que fait ville de Dakar budget ville de Dakar le maire Barthélémy Diaz est très sensible à une chose nous sommes une zone industrielle mais nous avons une maîtrise fisc Les entreprise yi la nga au budget de la ville de Dakar le maire Barthélémy Diaz, a fait, vu l'importance, nous avons aussi war nañ ci des di aussi am bel air, xamante mécanisme d'où l'importance collaboration avec le maire de la ville de Dakar. parce que ville de Dakar c'est un partenariat pour xamante ville de Dakar euh, fonds d'entretien routier FERA autonome donc nous, nous créé une enveloppe FERA nous avons dañuy ville de Dakar aussi parce que li ngeen gis une cérémonie de lancement mais vous y 19 communes de Dakar comme vous dans d'autres communes vous ngeen fa programme voirie yoo xamante beaucoup bokku la donc occasion pour moi voilà durée normalement 6 mois mais euh, occasion le pour moi pour que nous félicitions ki nga Mouy qui est l'adjoint au maire qui est très engagé un élu boo il fait l'unanimité autour de son engagement euh, un républicain n'est que de le xamante sous subax Il Faut que woowee ci le ville de Dakar Mom amatul benn préoccupation donc lii ngeen ça fait 72 heures que man Mom arrêté wuñu benn et je tenais à vous encourager vous avez les félicitations en tout cas de Anne Belair des notables qui sont là avec nous délégués de quartier mais surtout souhaiter en tout cas

mu am refoulement boo fi dellu si waatee une semaine dafa mel ni da nga jël ubbi sa fenêtre sànni xaalis donc loolu jàppale la ñu ci conf ci ci collaboration boobu di gërëm ñëpp di sant ñëpp